noo def. Euh, Aysatu maa ngi sant yàlla bu baax. Mm-hmm. Euh, di julli ci yonent bi. sallallahu alayhi wa di sant suma ñaari waajur. suma yaay ak suma papa. suma papa yàlla na ko yàlla xare àjjana. Mm-hmm. suma yaay njeengi njaay yàlla bàyyi ko fii ci sunu kanam. ba ci kanam ak kanam. xanaa di kontaan ci seen teewaay fii ci suma kër. Mm-hmm. ci Nord Foire. voilà alors euh, Doudou ñu dugg ci émission bi da créer mouvement politique tuddee ko. dooleel Macky Sall yoonu yokkute. Mhm. Euh, mouvement boobu euh, lan moo ko tax a jóg dëgg-dëgg bu weesoo euh, jàppale Macky Sall. waaw Aïssatou mouvement boobu li ko tax a jóg mooy yoonu yokkute dooleel président Macky Sall. Mhm. ku ne xam na diggante du njaay Mbengue ak président Macky Sall. Mhm. yàlla def ma àndoon ak moom mu yàgg lool nuy xeex di xeex di xeex ba yàlla may nu ndam donc dama daan way rek di ko wayal. di jël parole taxaw ci gannaawam léegi nag bi ma demee ba yàlla may ma li nga xam ni moom laa bëgg ci suma diggante ak moom mooy mu nekk président de la république du Sénégal ci kàttanu yàlla nag du njaay Mbengue yàlla laa ñaan yàlla defal nu loolu ñun Sénégal yépp donc euh, duma def dara nag lu dul continuer sama way mais am as am mouvement bu mag boo xamee ni ay nit la ñu yoo xamee ni euh, ba ci diaspora bi partout dans le monde ñu bëri dañu bëggoon du njaay ndeng ba ma gisee nag ma nekk ci gannaaw Macky Sall samay mbokk su may xarit su may àndandoo su may am di jàmm su may dëkkandoo surtout waa HLM waa Gueule Tapée ñëpp ak ñi ma bokkaloon classe ñëpp jàppale président Macky Sall ndax bëgg gi ma bëgg président Macky Sall léegi nag bi yàlla defee ba ndam am ma def sama rentrée politique def ko au HLM sama kër yaay. fi nga xam ne foofu mooy suma base parce que foofu laa yaroo donc euh, bi ma ko defee ba pare sama mouvement bi nga xamee ni ñoom nooy euh, mouvement dooleel Macky Sall yoonu yokkute parce que président loolu la doon campagne moom yokkute rek la bëgg ñooñu nag ndax di woote réunion nag dina woote réunion ñu nag léegi du njaay li ñu bëgg mooy mouvement bi xëy na amuloon ay document amul woon ay kii danga doon taxaw ci gannaaw président Macky Sall di way rek mais léegi dañu bëgg nga am euh, mouvement bi topp sa gannaaw yépp nu nu nu sensibiliser leen woo leen am mu former mouvement bi tuddee ko dooleel Macky Sall yoonu yokkute fu président Macky Sall dem nu nu ànd ak moom lu mu lu muy woote kenn duñ ci jiitu loolu moo tax ma former association bi euh, mouvement bi Euh, yoonu yokkute dooleel Macky Sall ndax ku ne xam na ni man euh, président Macky Sall rek moo tax may politique man way rek laa doon def mais comme que nag am na beneen euh, activité bu ma ko mën a defal bu dul way rek am na ay nit ñu ma bëgg ñoo xam ne ni tey ñooñu daawuñu politique mais bu ma leen wooyee ci yoonu yokkute nu ñëw dooleel Macky mais moo tax ma formé mouvement bi. Mm-hmm. bon mu am ay secrétaire am ay am na ci am na lu bureau bu mag. boo xamee ni donc euh, ñoom ñëpp sac jeudi ak mardi dañuy réunion di def ay cotisation ci mouvement bi fu bu ëllëgee fu président Macky Sall di dem wala kilifa gu fi ñëw di ko set si mouvement bi day jël ay kaaram donc mobiliser mouvement bi yépp solo leen ay t-shirt jox leen ay lekk ay naan nu ñëw tàccu président Macky Sall seconde ko xam ne aussi du Ndiaye Mbengue dootul waykatam rek léegi politicien Macky président Macky Sall la loolu moo tax nga formé mouvement bi. waaw léegi euh, euh, mouvement bi euh, Doudou Ndiaye ndax am nga siège. waaw am na nañu siège. fu mu nekk. Ah, siège bi mi ngi nekk euh, Cité Port. Euh, en face mosquée bi. Mhm. Euh, foofu la ñuy réunion chaque mardi ak jeudi. Mhm. à partir de 19h. Mhm. jusqu'à une heure du matin. donc ay kilifa rek noo nekk ci mouvement bi. léegi est-ce que am nga ay ay récépissé yooyu am nga papier yu leer yu war a firnde ne mouvement bi fi mu ne dëgg-dëgg juddu na. kayit yépp li nga xam ne moom la laaj yi mouvement bi war a am yépp. man c'est vrai que jànguma mais ñi ma nekkal ci mouvement bi def defar nañu këyit yépp teg li ci des mooy euh, xanaa nu commencé nag euh, sunu liggéey mooy fu président nekk rek léegi ak fu nu war a dem ak moom fii ba Europe ba bitim réew ah, parce que mouvement bi yamul Sénégal rek yam na de dem na demoon naa fi Europe temps yi passé Italie avant avant législative yi donc dama seeti woon ñi nga xam ne maa ngi ñoom na bokk ndeeg baay nu nekk foofu aussi am na ñeneen ñoo xam ne ay jàmbur lañu di jàppale président Macky ndax sama jëmm ñooñu laa seeti woon en plus que dem na Hollande dem na Belgique te yooyu yëpp mouvement bi noo génnee ci seen xaalisu bopp ñoom daggal ma billet ale et donc. Euh, pour ma mën a def loolu donc euh, yàlla dimbali na ma ci aussi ñi ma demoon ñëpp seeti leen tubaab fakkaal foofu yëpp président Macky Sall moo fa gagné. Mmh. léegi bala ñoo dellu si